maître Alioune mi ngi noonu di ñibbi ginnaaw ba booy dañoo attaqué maître Alioune Ndoye mi ngi génn noonu ñibbi booy ñoom ñoo attaqué di sànni li nga xam ne moo di ay xeer ba maître maître Alioune Ndoye garde corps yi ñu ko noonu di koy yóbbu Bamba Fall maître ba le maire Bamba moom mooy dem noonu le maire Bamba Fall moom mooy dem xam ne moo di le maire Alioune Ndoye ah moo nekk nii maître ñibbi booy affaire bi xawoon na li def li nga xam ne moo di calme ñu jékki jekki gis ay xeer kenn xamul fu mu fu mu jugee dafa mel ni waa waa waa waa Seydou Gueye yi dafa mel ni waa Seydou Gueye yi ñoom ñoo déclenché li nga xam ne moo di xeer yi mu mu doon am mu doon loo xam ne tey ji woy bu doon woy boo xam ne kenn maître Alioune Ndoye ngi tàccu maître Alioune Ndoye <laughs> Ndakaaru maître Alioune Ndoye di tàccu ñi nga xam ne moo di jeune